للرثيات عدت لتزداد قلبي حسن بهجتها وواجهت للحدايا بالمبرات أمست طيب نفسي كي أميل لا وحاولت ليل قلبي للحضيات وقاتفتني بما يقول خطبتها وازرت صدق وعد بالرقيق سليمان أمر مو سوي بمجدتين خليلي دين سني لمحمد سليمان أمرمو سري بمجدته خليلي دين سن نيل لمحمد سليمان أمرمو سري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 xayril maxdubi alayhim wala daalliin mbokk yi ci turu Modou Mame Thiam mi nga xam ni mooy taaw ci kër gi ak ci turu Samba Diop mi nga xam ni mooy taaw famille Ndiobène ci kër gi ak ci turu samay rakk Siri Thiam Maylim Thiam Baye Dame ñu góor ñi ak jigéen ñi ñoom Aram Thiam ñoom ñëpp ak famille Thiamène maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci yii jataay bii nga xam ne ak xew mii nga xam ne da ngeen jàpp ngir ngir ngir suraal cëral suñu maam moo soose mii nga xam ne moo tëdd fii ci tali suñuy bàyyi ba tey lépp li nga xam ne ñu ngi ko waroon def fii ci kër gi gis nañ yéen xale yi ngeen taxaw ci yéen a ci guddi ak bëccëg def ngeen ci seen kattan def ngeen seen doole yàlla rek mën na la fay yàlla yàlla fay lii nag ñun dañ cee kontaan bu baax ndax yéen sëti mu muuc àndandoo nekk benn ci mbooloo mi di di mbooj àndandoo nekk benn lii day loo xam ni lu ngeen war a cëral la lu ngeen war a dëgëral la kon boog dañu ñaan yàlla daal yàlla mi nga xam ne moo yore kattan yàlla mi nga xam ne moo yore man-man ak doole yàlla jàppale leen ba nga xam ne li seen maam tam mépét ak seen i baay ak seen nijaay ngeen def ko ci sutura ak talaak ak jàmm ñun daal suñu xol sedd na ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaan daal ngeen gën a góorlu ci ci lii ngeen tàmbali ñun nag dañuy wax ni mbooloo boo gis mag baax na ca xale baax na ca ndax mag moom expérience am la am xale yitam am na dooleem kon mag ak xale bu ñu àndee rek yàlla mën na dogal lu nu lu nu lépp loo xam ne ñu ngi koy jublu yàlla mën na cee def loxoom ci soob ko soobee kon daal ñu ngi leen di gërëm daal di gërëmaat di leen sant leen ñaanal yàlla yàlla taxawaat taxaw taxawu leen yàlla musal leen ci seytaane yàlla dëgëral leen jox leen kattan ba mbir mi édition bi muy deuxième édition mu nekk troisième édition quatrième ay édition yi yu taxaw a taxaw taxaw su ngeen fekk ko ñu taal ko wasalaam. bi ngeen demee ci bërëb ba lan ngeen yëg ak lan ngeen yaakaar war nañ yokk ci bërëb ba gën koo defaraat waaw bërëb bi ñoom bi dañoo gis ni Euh, amoon nañ ci mébét ndax fi ñu toll sax yaakaaroon nañ ni bu ñu accès euh, gannaaw bu ñu ko defee première pierre euh, muy première édition tey jii waroon nañu fekk sax mu gën a mu gën a mu gën a mu gën a taxaw wante nag ah, comme àdduna moom lépp xëyul sotti dañoo bëgg daal ah bu ñu fi jógee ah, képp koo xam ne am nga sëtu mënul may nga na nga na nga ci taxaw. boo amee sa matériel boo amee sa xaalis lépp loo am daal ñu taxaw ci ba bu ñu fi desiwaatee ah, mu nekk ba jër boo xam ni ku ko gis xam ni lii ki fi tëdd jar na ko mérite na ko waaw. waaw béréb bi ñoom bu ñu danoo gis ni ah, amoon nañ ci mébét ndax fi ñu toll sax yaakaaroon na ni bu ñu agsee ah, gannaaw bu ñu ko defee première pierre muy première édition tey jii waroon nañu fekk sax mu gën a. mu gën a mu gën a mu gën a taxaw wante nag ah, comme àdduna moom lépp xëyul sotti dañoo bëgg daal ah buñ fa jógee ah képp koo xam ne am nga euh, sëtu mënul may nga na nga na nga ci taxaw boo amee sa matériel boo amee sa xaalis lépp loo am daal ñu taxaw ci ba bu ñu fi desiwaatee ah mu nekk ba jër boo xam ni فإذا أثقلت درارا في وتنمر حتما بالمعونات فعدت عنها إلى ما الله يبطلني به جنانا عوافرا وفيات حن الخوان اللوات لا تكافئها سلمى وهند وليلى في القريدات هن القوان اللوات لا يفوز بها إلا الذي استان بالتقوى بطاعات هن القوان اللوات الدار ماكسات فيما لها من قيام وسط جنات حور لدى الله حين لا يقارفها حيث ولا درا دام النقيات هلة الله أتراب مقدرات تحت الخباب من الفسا صليمات فقم القناديل نورا طيب وعتيق يبدلن بدراية فوق السماوات لهن اسم رطيب خالد قدير توء الطرائب جان للجنات miraatu azwaajiha abdaanun naam is nuuru abdaaniha yusri siraajaati maa massahum naanatun أسهاس أنساها شيء من الوثم في وث ولا غاد وليس يبخين بالأسواد من فتال وباجة النور تنمو كل ساعات ولا يسلن فسارات عندهم أبدا أكرم بهن قريدات صفيات ولا يسرن إلى مد ولا هرم بل لا يزلن المقيمات المعبات هن الخوالي اللواتي القلب طاب بها يختارهن على سلمى وحندات ومع العلة قاء ضعيفات رياء بتوبة من خواء نفس لطاعات بتوبة وبإسلام إلى مليك قد جاد بالمصطفى كنس البريات أسلمت نفسي لرب لا شريك له مع الذي قفوه سخلي وحاجاتي أسلمت نفسي لرب لا شبيه له ما الذي حبه أحصى مراماتي أسلمت نفسي لرب كروب وخوف نجي الله لا تغتبلا بما ليست بقادرة ولا تقيم رجاها فيك يا الله وأسقنا مها من مائك وزر من اخترته من جميع الخلق يا الله منهم من كان يفسد ذا حي ويهلك ذا كفر وينصر من يعزاك يا الله محمد المسك الأغيار قائدنا لجنة الخلد يوم العصر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن قفه ليوم الدين يا الله mbokk yi maa ngi siyaare ñëpp duma sax li waaye nag kon ma ni askanu maam Mët Sabatal ñëpp maa ngi leen di siyaare boo ko jaaree ci Mët Sabatal rek siyaare nga ñëpp bay woo bay kenn ndax moom mooy waajuru maa soose maam maa soose nag allo maam maa soose nag ak ci mbëtëg taal ma ca Gosaas Sarmata Tall mi ca Pire ñoo bokk ndey ak baay Moustapha Tall la seen baay tudd Khoudia Seck la seen yaay tudd Khoudia Seck Mbéri Tall Mbaaco Anta Penda Mané Gueye Aram Diak maa soose dafa tawloo mënul mbay maa soose te ca Gallaay maa soose te ca Mor maa soose ak Madické maa soose ak Gueye maa soose noonu ndey ak baay dem kër Baasin Talla loxoom ba kun ko jox sama maam xedi caam mu baax ma mu am ci alaaji mur mu am caam mu baax mii ci montagne gi ci Louga daw na sa faak mar wa rendi xarum boppam ca bëgg caw lakku yàlla yàlla guddal sa fan ci àggal la fi xale Louga yi dafa am ñu ma yóbbante woon ni ma naa leen ko waxal bu la yóbbantee boo demee bala ngaa bala ngaa wax say wax dangay ngay da ngay da da ngay joxe yóbbante ba pare doogaa wax li ngay wax ñoom dañ ma naa leen gërëmal mag ñi toog nee naa leen gërëmal mag ñi ndax nee nañ euh, xamuñu ko olof di waxatee liir bu fecc ba neexee ndey ja moo jàpp ca mbaggee kon ñun tam liñ fi def nii ba nit ñëpp di ko xool di fi kii yéen yéen a jàpp suñuy mbagg yéen ñu may doole nee nañ loolu ñoom ñi ngi leen ciy gërëm ñu ni tamit bëgg nañ ngeen dimbale leen ngeen jàppale leen ci barab ba ñu defar ko Euh, bu ñu defaree bare ba pare tamit nee bëgg nañ tamit ngeen jàppale leen ci tour bi gën a dox maanaam gën a dox gi mooy ku ci nekk nga nga wax ak sa njaboot motiver leen ñu bokk ba ci xale yu ndaw yi ñun xeebuñu kenn famille lañ wax te famille ku bëgg kuy defar da ngay élargir maanaam ñëpp ay bokk doo xool ni kii bokk na wala kii bokkul wala kii bokkul loolu daal lañ ma wax ni ma naa leen ko wax muy yóbbante euh, bu ma paree ci loolu tamit ma gërëm sama mbokk jigéen ñi toog ndaxte ñoom ñoo defar euh, ñoo tax ñu mën a taxaw fii tey bay wax parce que ñoo nekkoon ca waañ ba euh, ñoo togg ñoo sonn te en général nit ñëpp bu ñuy wax dañ koy fàtte te tey tuur bi tey bu fi loolu amul woon jeex na waaw foofu laay waxee maanaam euh, beneen beneen beneen point bi may waxee tamit mooy point bi nga xam ni moo gën a ëpp solo ci tuur bi mooy mbokk gi ak mbokk dañ koy defar ak mbokk mbokk ak garab ñooyam boo suuxatul mu dee walla mu lax wala boog car bu ne daanu féete benn côté donc mbokk dañ koy defar loolu moo tax may ñaax nit ñi ah ñu gën a jàpp mbokk gën fonk mbokk ñu gën a fonk mbokk ndax wax ji yëpp liñ fi dajee neex na mbooloo mi bëri na mais li gën mooy nañ fonk mbokk doomu ndey nañ juboo doomu bàyyi juboo leneen juboo maanaam loo gis day am base base ba mooy kër ga bu départ ci kër gi base bi dëgër rek su génnee léppay dëgër waaye buñ ñëw taxaw fii mbooloo mi yëpp taxaw ñu waxoo ci rafet buñ paree naxante delluwaat delluwaat ci lañ nekkoon nañ rafetal mbokk yi ndaxte euh, Sénégal fii ñëpp a xam ni heure bi ñu toll foo dem bërgi dem rek maa ngi jóge ci tuuru nijaay Samba bi muy gumba xama ak jaata ak beneen tuur ak yeneen tuur instant bi nii Sénégal ñëpp dañoo jóg jàpp ci loolu noonu ñëpp a ngi tuur léegi kon tamit ñun tam nañ ñii ci sa mbax ne ñëpp ndax boo demee ci dëkk ñëpp di màtte boo mënut a màtte tamit soccal say bañ wala ngay siiñ ba ñëpp ku la gis ragal la noonu la demee ñun nañ dugg ci affaire nañ ci nekk comme ni ci ñëpp nekkee lu ñëpp gis ñu gis ko lu ñëpp am ñu am ko waaw man nag loolu laaj amoon ci lu may wax ndax xam naa ni wax moom yombul te comme que euh, Baye Samba wax na ba pare maanaam tegoon ci wax sax du woon yoon waaye nag euh, noonu la demee loolu daal laaj amoon lu may wax lépp euh, kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen sant bu baax di leen gërëm tey am mbégte bu baax a baax ci bis bu sell bu rafet bii ñu teew ci teewaayu rafet bii ndax lii teewaay bi yaakaar naa kenn ku ci nekk xam na ni mënuñoo am beneen teewaay bu ko gën a rëy ci ñun ndax day bis bu màgg lool ci ñun muy bis boo xamante ni sii dañ cee dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm di ci daje ci fii ci suñu dëkk cosaan bu mag bii di Tanime di ci fàttaliki suñu ay maam ak suñu ay way dawlu kon loolu ñu ngi ciy sant mbooloo mi fi teew yëpp yëpp gi nag ñu ngi koy jéglu bu baax a baax ndax ku ñu xam-xam ni manewuñu wax ci mbooloo waaye xëy na day ndigal te ndigal bu jubee caabi la joo xamante ni si day yam rek ubbi waaye bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi kàddu gi ci turu Assane Thiam mii di président wu Touba ci lañ koy jële di ko di ko di ko di ko masawu bu baax te di ko jéggalu tamit kàddu gi xëy na ndigal li moo tax ak kilifa yi toog suñ pap alaaji ak suñ pap Moudoumam bii dem léegi ak pap Samba bii ak ñi ci toog ñëpp ci biir baas bi kàddu yi nag mi ngi ci jiital mu ni bu ñu jëlee kàddu yi ñu santal ko bàyyi mbudu maam Thiam bu baax a baax a baax ndaxte tam ku sa ku yayoo sant la ndax depuis depuis depuis bis bi bi mu taxawee ba léegi chaque jour wax ju rafet ji mu ciy wax ak di ko ci def ak xiirtal ci ak njabootam ba nga xamante ni si kenn ku ci nekk bépp yitte boo jàppoon bàyyi nga ko trois jours avant tey jii nekk ci bis bi ngir lu ko jagal neen kooku mi ngi koy ameel cant ak ak ak njukkeel goo xamante ni am na commencement mais amul yemukaay loolu nag bu amee yaakaar naa ñun ñi tamit dañ ciy potoxlu sànni waale ci suñ kàddu cant ndaxte bërki démb bi ñuy gonte di ñëw fii toog nañoo moom ci saalam luy yàgg a yàgg mu soññaan ñu ci ñaaxaan ñu ci waxaan ñu ci loo xamante ni sii buñ jàppee woon fukk tey jii ñi ngi ci ñaar fukk wala ñu ngi ci téeméer mën naa ne ndaxte moom benn wax la am li ngeen di def rafet na dox leen bu leen geesu même bu leen toogoon bañ ni suba lañ jàpp date bi kees gi dara newu ci dugg leen ci biir kër yi fépp fu mbokk nekk ngeen génne ko ni ko joxeel temps mu génne ko joxe ko ngeen dem def bis ba ndax bis bii kat wax dëgg yàlla comme ñu ko daan waxee ëpp na ñu koy ñàkk a jël ñu koy jëlal di ko def ndax biñ ko taxawalee léegi mat na bu ma juumul ay juróom-benn at juróom-ñaar te réunion nañ foog naa Louga gi njëkk a sosu réunion nañ ñetti at Touba réunion ñaari at ñu door a taxawal première annuelle bële passé loolu yaakaar naa kon yàgg na comme li mëniiru wax léegi léegi yaakaar naa fépp foo tourné surtout après tabaski ak après ñëpp ñi ngi ñi ngi xëntewoo di xencu seen mbokk fi ñu nekk di leen xëcci di waxtaan ak ñoom di leeral seen diggante ak ñoom ndaxte dañoo toll ci jamono joo xamante ni si tey da romb sa mbokk sax bu la borom dimbaliwul dëgg mën nga koo romb jëflanteeg moom ba ba dem te doo xam li nga bokk ak moom jamono ji moo ko laaj dafa xaw a rëb tuuti moo tax lii nii suñ borom nattuñu ci rek ñu nekk di ci nap nabi ngir bëgg rek suñ borom fekk ñu ci ak ndimbalam ñu man loolu noonu xay na suñu askan wi mu mu mu mu mu mu denc bu fekkee ndax amu ci ñuy ñuy ñuy gën a santaan mbooloo mi yëpp surtout waa Louga yi ñu fi teew ñëpp ci bis bi ñoo ngi leen sant bu baax avant nag ñuy continuer kàddu yi dafa am loo xamante ni si tamit lu ñu ñor la lool nekk suñ biir xol tax xol tam lañ koy waxee ndax yaakaar naa tiset yi ñu sol nii ñu nekk ci waañu kenn ku ci nekk gis na ko liir na liñ ci bind sëñ Modou Thiam moom lañ ci rendre hommage mu nekkoon suñ président bi Assane yor tey ñuy wàcce suñ kàddu ndànk di ko wax ak xol boo xamante ni si ñu ngi koy delloo ci suñ borom di ko ñaanal ndaxte tey jii réunion bi jaraloon na ko lu nekk biñ réunion jóge jóge Baxdaad réunion ba pare mu jiite ñu timis mu génn taal motoom ñu génn taal oto ab du topp ci ginnaaw tuuti la daw ñu woo ñu téléphone ñun ñu féete woon ci ginnaaw dogal ba wàcc ci kawam ñu woo sapeur ñu ñëw ñu ànd ak moom dem hôpital jànnatu suñ borom def ci la ñoo ngi ñoo ngi xarawlu bu baax a baax di sàkku ci mbooloo mi képp ku fi teew nga nga nga nga nga ñaanal ko bu baax a baax ndax doomam ji jël kàddu léegi yëkkati fi xasida gi nga xamante ni si moom la ko ñëpp doon euh, dàkkantele muy mucc am si ndiidi loolu rek doy na exemple ñoo ngi koy ñaanal bu baax suñ borom dolli ko yërmande tey jii suñ motivation dëgg-dëgg ci tuur bi moom jëmmam jooju bokk na ci ndax daf ñu daan soññ bi ñuy waajal taneem daf ma daan wax ni ma del dégganteeg waa Louga yi ca la doxe ba may dégganteeg gars yi nga xamante ni si ñoo yor tuur bi fii heure buñ da réunion ba pare mu ne ma ndax woo nga waa Louga ma ne ko woo naa waa Louga mu ne ma lu ñu la wax ma ne ko ña ngay dox mu ne ma kon baax na ñun nañ góor moom dafa jëloon référence ci waa ni ñu waa Louga ñoom ñoo gën a dox góorgóorlu leen ngeen dox amul benn réunion bu ñu mës a def ci karne bi boo ko liiree boo xamante ni si tardé na ci heure bu tardé empêchement la am te bala ñoo jeexal réunion mu ñëw kon kooku yaakaar naa li ko mbokk jaral ñu ngi koy ñaanal tamit bu baax yàlla na ko coonam mbokk tam fekk fa mu tëdd suñ borom fay ko bu baax ndaxte tamit mbokk alalu yàlla la moo ni ku ko jokk mu jokk ko dagg mu dagg la moom kon wàcc na ndax dafa jugoon di dox tànki mbokk ak loo xamante ni si day jokkale mbokk yi ba suñ borom jël ko foofu moom wàcc na kon ñun ñoo ci def nañ gën a góorgóorlu jàppaat lii lii nag man lenn laa am lu ma ciy wax lii ñun luñ bokk la ñun ñëpp muy tuubaa Louga Dakar feneen ak feneen ku ne xam na ni mbokk gi ni mu tasaaroo ci dëkk ci biir réew mi Sénégal jërut ñuy xaar kenn kenn kenn ñu boole la ci képp ku yëg doxalin wi rek yaakaar naa war ngaa woote xam nga fi ngay jaar ngir def ci li la ci war wax ci li la ci war ngir mu gën a jëm kanam ndax bëgg nañ déwén bu ñu fi teewaatee naa liñ fi simb yëpp yëpp yëpp yëpp ñu féetale ko ginnaaw te ñu ngi koy ñaan ci kàttanu suñu borom ak mbokk gi ñu fi teewale loolu noonu suñu borom dimbali ñu bañ defe ko comme niñ ko bëggee suñ xol tamit sedd na guyu ci teewaay buy rafet bii ñu gis soxna yi tamit ñu ngi leen sant bu baax kenn ku ci nekk xam na ni fan yi yëpp noppalu wuñ tooguñu chaque jour ñi ngi dem ak ñëw di xool lépp loo xamante ni si luy rafetal bis bi la kon ñu ngi leen di sant bu baax waa di santaat daayira famille taaleen yi suñ Mbàkke ci teewaayam di sant suñ mbokku dëkkandoo yi nga xamante ni si ñëpp dakk nañ dagg nañ seen yitte ñëw teew ci bis bi ñu leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah xale yi tubaarkalla kàddu yi fi jib yëpp am na njëriñ am na solo waaye daal wax dëgg yàlla xale yi ca dëgg dëgg dëgg dëgg ca dëgg dëgg dëgg wallaahi yàlla yàlla guddal seen fan yàlla ca ànd ak wér barke seen naam solo wax dëgg yàlla lii lii daw na yaram ku xool seen taxawaay bii seen dukk dukk ji barki de weer bi yëpp ah wax dëgg yàlla ku jógul ànd ak yéen daal wax dëgg yàlla ah, xëy na leen ngàntale doon rek ah waaye nag li nga wax sànq euh, kii li ma sànq léegi bul xaar bu leen xaar ku ñëw déedéet ku ci bokk rek wax leen ku ci bokk rekk waxal ndaxte waxuma ak digguma ngay ngay moytu ki nga war a ki nga war a woo woo ko woo ko ndaxte boo ko woowul dafa ah, man de dégg nag waaye kenn waxuma kenn kenn waxuma kooku kooku moom moytu leen ko ku koo xam ne ki war ngeen ko wax rek wax leen ko léegi euh, sëti Gumba Jaata Gumba Jaata amuñu sët seen sët yi yemoon ci jóob rek dañu am sët ci caam am sët ci kase am sët ci ñeneen ñeneen ñoo ñëpp woo naa leen bu demee rek jàmm bàyyi xel loolu incha allahu daan ko toppatoo incha allahu bu ko defee ki nga xam ne aaye bu déw nag jàmm ñu teel koo wax woo nañ ñëpp woo nañ ñëpp ndaxte ñëpp ay bokk lañu waaw Dakar yaakaar naa ne yaakaar naa ne Dakar lay doon waaw am ndax am na ku ne e nañ ma ko jox waaw Mbaye Diop bu fekkee ne bi daal tuxuwut Mbaye Diop nee na nee na woon déwén nañ ko jox Mbaye Diop nag ku ko xam ne mooy e, Ndiaye Aw Diop di rek Mbaye Diop doomi Xadi Caam waaw moom nee na incha allah déwén nañ ko ko jox wanaa ñëpp wanal ñëpp mbokk gi yëmu ci euh, sëti euh, Gumba Jaasa rek déedéet dañoo am ay yeneen sëti kaseeg caam ak ñeneen ak ñeneen ñeneen kon ñëpp ci lañ bokk genn mbokk la moo ngoog mbay waa góor mbay caam mi keroog tubaarkal la taxaw na taxawaay bu rafet ba kontaan ci li ko bëggee woon yëpp mu doxale na ko noonu ma daal xale yi man day wax dëgg yàlla kontaan naa ci yéen lool kontaan nañ sax lay wax ci yéen kontaan nañ ci yéen lool kon noonu daal noo seen gannaaw rek noo seen gannaaw rek incha allahu ah kon lañu def ñaan waaye ah, am na loo xam ne nag ah, fàttali naa ko sama dafa da dem eh, dem léegi. toujours dama ko daa wax ci euh, jataay yu mel nii ci jamaa ja wala dayre ba wala xew wala leneen wala leneen ndaxte eh, mbay dam aadama ku kenn ku nekk jàmm nga bëgg te wér wér yal na ko yàlla defal wér gu ànd ak jàmm ndaxte a ah, dafa am lu xew ci jamono ji léegi lu bari lool feebar yi dañaa bari lool feebar yoo xam ne nun ñii xamuñu ko woon gisuñu ko woon sunu fanweeri at ci gannaaw ah nee ñu nag nee nag ñëpp euh, euh, ba marché nañ ci ne jimbo yi téemase yii moo waral feebar yu bari yii te loolu loolu ñëpp ko wax kon nag danoo euh, yéen jigéen ñi togg bàyyi leen ko bàyyi leen ko te nee naa itam euh, gis naa ci benn takk boo demee hôpital ñi nga xam ne doo duñ ko lekk yomb na nga xam ne doo fa gis tubaab doo fa gis naaru Beyrut doo fa gis naaru gànnaar hôpital ndax ñoom li ñuy lekk ñoom nañu ko xam kon nag asalaamaaleykum bokk julli ñu def ñaan ñaan gi tur yàlla la ñuy ñaan tur bi nan na ko yor waaye yàlla ñaan kenn ku nekk yéene lam bëgg ci xolam auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin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 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت من تفوت فرجه البصر هل ترى من فطور ثم أرجه البصر ثم أرجه البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسا وعسير ولقد زينا سماء الدنيا بمسابح وجعلناها رجاما للشياطين واعتدنا لم أصاب سهير والذين كفروا بربهم أصاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سيقا وهي تفور تكاد تميز من القيس كلما ألقي فيها فوج سألهم خسنتها ألم يأتكم نصير قالوا بل قد جاءنا نصير سرور فكسمنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نقول ما كنا في أصحاب السفير فاحترفوا بصنب سوق الأصحاب السفير إن الذين يخشون ربهم بالقيب لهم مغفرة وأجر كبير وعسروا قولكم أو اجروا بي إنه عليم ذات الصدور اللهم يا من أسهر الجميل وستر القبيح ولم يعاقب بالجريرة ولم يهتك صدر ويا أزم الأذي ويا أسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا ويا باسل يا ذنب برحمة يا زامي كل نجوى ويا منتهى كل شقوى ويا كريم الصفي ويا أسم المن ويا مقيل الأسرات ويا مقتدئا بنام قبل اتقاقها يا ربي يا سيدي يا مولاي ويا قاتل رحبة أسألك أن لا تسوي قلقتنا ببلاء يا ولا بأس بالنار اللهم صل على سيدنا محمد الفاضي لما أغلق والقاتم لما سبق نادرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أق قدره مقدار عظيم lii fi ñaan yi yëpp yàlla suñu borom nangu ful ay milliards milliards jéggal ci ñi faatu ñëpp ah, barke bi suñu borom taas ci barke bi borom kër yi na yàlla jombal seen dépasse ñi amagul borom kër yàlla yàlla may leen borom kër tam barkeel barke ñi amagul soxna yàlla yàlla may leen soxna yoo xam ne dañuy soxla day dëppoo ak euh, wërsëg ba ak jàmm ja barke sana salama naaw bi yàlla yàlla na suñu borom ñu ngi la ñaan nga àggal leen ko ci jàmm mu bari te barkeel sàmm ko dara bañ ko yàq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaamaaleykum wa mahdadi wada zikr ayami siba wa layaliha ودع عنك تذكار المغاني لغردي kontaan nañ ci torop parce que nit moo amoon lu du sa ay mbokk parce que lii dafa neex ñu ñëw ci dëkk bi nii xam ne suñu ay dëkk maam la ñëw wàcceel leen kaamil ñaanal leen tey franchement affaire bi yokkute rek lañ ci gis ndax bu ñu commencé ay xam dem ba ren ñuy rey nag kon loolu yaakaar naa am na avancement bu bëri ci sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla ñu dem bay rey ay nag kontaan nañ lool rafetlu nañ ko. gërëm bon di leen masawu coono parce que ak bis bi bis bi vraiment bis bi yombul woon donc fexe nañ def lépp pour pour organiser ko donc bis bi li ma ci xalaat daal mooy bis bi vraiment euh, euh, kii nañ daal euh, gis naa engagement yi nit ñi jël bon ñëpp jël nañ def yeneen yenn effort yoo xam ni bon sacrifice yi tamit gis nañ ko. bon gis nañ ñoo xam ne nii def nañ ay kilomètres pour ñëw fii donc juste pour honorer bis bi donc man loolu maa ngi si gërëm ñi fi ñi fi dajee ñëpp vraiment di leen di leen di leen gërëm ñoom ñëpp bon bërëb bi am na solo am na solo trop waaw je crois que genre lieu de pèlerinage la war a doon ci ñun donc war nañ ko defar ba nga xam ni képp ku ñëw fii nga dem foofu nga ziyaare ah defar ko defar boo xam ne bu mucc ayib koo xam ne chaque jour ku fi ñëw di nga dem fekk foofu bërëb bi xam ne bërëb bi vraiment toppatoo nañ ko ndax suñuy maam ñoo fa nekk donc suñ maam donc fu mu nekk ñun dañ ko war a fonk parce que ñu ngi dem di fonk maami jàmbur yeeg ñoo ñëpp te alors que ñun suñu maam lañ war a gën a fonk. ma di nuyu di leen sant sant waa dëkk bi di sant euh, sama rakk yu baax yeeg sama doomu nijaay yi ak sama nijaay yi nga xam bi am na ci ñoo xam ne ñëw ñu am na ci ñu ñëw di leen sant ñoom ñëpp. ñoom nag euh, dama leen di sant di leen gërëm parce que jox na ma ci cër boo xam ne bii wax dëgg yàlla mu leen neexoon du leen ci fekk parce que niñ ci sonne wax dëgg yàlla man sonne wu ma ko ci te ñoo bokk maam yi te it maay seen mag waaye nag dama leen a jiital parce que ñoom neex nañoo jiital parce que boo boo leen jiitalee duñ la xuri duñ la xosi donc euh, moo tax ma leen di sant di leen gërëm di leen euh, ñaanal lii ñu li ñuy jiblu di ko def yal na koy yàlla yokk te may leen gudd fan ak wér ñun ñëpp ñu àndandoo chaque année ñu koy def mbir mi nag moom mbir la moo xam ne ñun ñëpp dañ ko bokk mu am ñëpp ko bokk amul xej ak seen amul kii ci la bokk am kee ci laa bokk bernde bi mu wax nii daf ci am solo parce que ay nit ku leen dajale ci place war nga leen berndeel parce que Sëñ Tuubaa bernde la xam ah jox nañ ñu lekk naan buñ jàngee sunu kaamil jàngal ki nga xam ne moom moo tax ñu daje fi jàngal koy jàngal ñu def suñuy bernde lekk lu ñu war a lekk def lu ñu war a def ku nekk tasaaroo ñu dem ba déwénati waaw te ñaan yàlla yàlla may ñu fekke ko na nga te na ngeen déwén daf na ngeen mooy jàmm lépp xaj na ci li ma gën a seetlu mooy. fi ñoom nii franchement xaw ma leen woon sax fii laa leen xam donc ay mbokk yu jege nga déplacé peut-être def ay 200 kilomètres ñëw fii pour xamante koo xam ne ki moom dafa def 200 kilomètres xam nga loolu franchement pour man lii lu am solo la quoi il faut nit ñi xool ko gën ko pérenniser moom gën ko rafetal gën ko dëgëral gën ko jëmmal parce que lii li koy jëmmal nag moyen la il faut que nit ñi xam ne moyen la du waxi kese nit ñi ñi nga xam ne ñi am nañ idée boobu te mu nekk seen idée vrai na am leen jaral ñu xam ko li mu mooy bàyyi ba affaire bi xaw benn somme yooyu dafa metti il faut que ñu xool loo xam ne lii de mois wala dara nit loo xam ne lii سوي بمدة خليل يدين سني لمحمد سليمان أمر الله سوي بمدة محمد